sayyidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain laqin lisaani waxlulan minhu al-uqad waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen balu ak te di leen baal di leen ndokkeel bu baax a baax a baax ci topp gi ngeen di topp suñu jotaay yi ñi ànd ak yéen ci ak fàttalente Euh, te muy jataayu xam-xam yoo xam ne ci limu jëm rek mooy fàttalante ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu moo mel ni euh, dañuy bëgg a dalaat téere bu bees boo xam ne ci eh, mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu la bokk ba tey rek muy téereem bi nga xam ne moom la tuddee jazbatu sigaari an laibin li xidmatil muxtaari téere bi ñu bëgg ànd ak yéen noonu la ko sëriñ bi radiyallahu anhu tudde mooy téere bi nga xam ne day ñot di ndaw ñi euh, jële leen ci am po waaye yóbbu leen ci liggéeyal kañu tànn te mooy suñu sang ba di sayyidina muhammad alayhi salaatu wasalaam kon téere bi nga xam ne moom la ñuy bëgg dal noonu la ko sëriñ bi radiyallahu tudde kon mu mel ni téere la boo xam ne euh, ndaw ñi mën nañoo wax ne ci ñoom la ko sëriñ bi radiyallahu anhu jëme waaye sëriñ bi itam lépp loo xam ne bind na ko rek wax ne euh, ndaw ñi la ko jëmale itam bu ko mag yëree man caa jariñu bu baax a baax a baax comme na nga xam ne noonu la ca ndaw di jariñu waaye noonu la ko sëriñ bi radiyallahu anhu tuddee nga xam ne mooy téere bi nga xam ne day ñot ndaw ñi euh, jë jële leen ci ampo po maanaam lépp loo xam ne moo aju ci ampo rek téere bii bu ko ndaw ñi jàngee te settantal ko te jëfe li ci ne daf leen di jële ca po moomee waaye du leen ci jële dong bàyyi leen noonu waaye daf leen ciy jële ba pare yóbbu leen ci euh, farlu ci liggéeyal euh, kañu tànn te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere bi nag fii la ko sëriñ bi radiyallahu anhu tàmbalee euh, ñu gis mu tàmbalee ko bismillahi rrahmani rrahimi euh, sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman noonu la ko sëriñ bi radiyallahu anhu tàmbalee mooy dafa tudd yàlla euh, yàlla mi nga xam ne yërmandeem moo daj ci àdduna ak ëllëg yawmal xiyaam waaye ba mu ca bàyyi mu julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni ci euh, njëlbeen gi gisuñu sëriñ bi radiyallahu anhu euh, euh, muslu ci saytaane waaye ci ay bindam yu bari dañuy gis muy muslu ci saytaane waaye téere bi moom daa mel ni tijjeew ko loolu tijjeewu ko loolu waaye dafa eh, dal rek eh, tudd yàlla waaye julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa mu tàmbali téere bi di wax ne yaquulu dana wax ajazul baraya ka gën a lottu ca mbindeef ya al kay aji aaje woo ila yi jëm ca boromam yi may aji woomal al muqtadir kay aji am kattan nee na ki nga xam ne mooy wax day ci téere bi mooy jëmm ji nga xam ne moo gën a lott ci mbindeef mooy jëmm ji nga xam ne moo gën a aajowoo jëm ca boroomam bi subhaanahu wa taala waaye mooy jëmm ji nga xam ne aajowoo na lool ndimbalul yàlla waaye mooy jëmm ji nga xam ne euh, Euh, aaji woona lool ku am euh, am koom moo xam ne suñu borom bi subhaanahu wa taala moo koy defal ndax suñu borom bi subhaanahu wa taala am koomam euh, lépp la làmboo waaye lépp la daj kon sëriñ bi radiyallahu anhu nee na jëmm jii di wax de mooy jëmm ji nga xam ne moo gën a lottu waaye jëmm ji nga xam ne moo gën a aajowoo jëm ca boroomam ma nga xam ne mooy oomal te am kàttan comme moom dafa aajowoo jëm ci boroomam mi nga xam ne dafa oomal te am kàttan kon mën naa euh, sàkku bu baax a baax ca koom ma nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala amee waaye mën na koo sàkku yitam ci kàttanuk suñu borom bi subhaanahu wa taala muhammadum nu seyqi yi kooku nga xam ne mooy wax nag ne na muhammad la tudd mi nga xam ne mooy doomi sëriñam doomi sëriñam mooy kan mooy Muhammad te moo di Muhammad moom moo di ab sëriñam te mooy uh, Maam Moor Anta Sali Mbàkke radiallahu anhu sëriñ bi radiallahu anhu baayam moo doonoon ab sëriñam moo tax mu daan wax ci uh, téere yi ngay gis muy wax na ibnu cheikh yi mooy doomi sëriñam uh, nga xam ne moom dafa doon doom ci Maam Moor Anta ba pare wëlbatikuwaat defaat ko mu nekk ab sëriñam lazala du deñ moom moomee di euh, euh, euh, sëriñ bi radiyallahu anhu majzuban di aji ñoddiku li diini samadi jëm ca diiney suñu borom bi subhanahu wa taala ma nga xam ne moom la ñu jublu ci ay ay ay aajo kon kooku nga xam ne moom mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy doomi sëriñam mooy ki nga xam ne du deñ mukk di ñoddiku waaye du deñ mukk di euh, góorlu waaye di jublu diine suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne képp ko am aajo rek moom nga jublu moom suñu borom bi subhanahu wa taala lan la wax mu ne xamdan ak cant liman ñeel na ka nga xam ne xadd man na te dëgg-dëgg xeewale ne xeewale na bi tawxiidi ci tawxiid wal fiqhi ak fiqh wa tasawufi ak tasawuf almajidi bay aji tedd musalliyan mi aji julli ala lazi ca nga xam ne ataana dikke nañu al imaana ngëm yàlla wal islaam ak lislaam wal ixsaana akuk rafetal sayidina kookee de mooy sunub sang muhammadin te moo di muhammad wal aali ak ñoñam wa sahbihi ak saxaabaam na ñadi way matale ahdal waali kolla rek kilifa ga te moo di sayidina muhammad sallallahu alayhi wa kon sëriñ bi lan la wax ne na maa ngi sant euh, ki nga xam ne moom moo ñu xéewale tawxid xéewale ñu fiqh xéewale ñu tasawuf te ñett yooyu mooy li nga xam ne moom moo tënk diine ndax diine euh, tawxiit la ak fiqh ak tasawuf tawxiid mooy xam-xam bi nga xam ne ci la nit ki euh, di jaare di wéetal suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye di euh, gëm kennuk suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye gëm yàlla te bañ koo bokkaale ak dara bu dee fiqh mooy xam-xam bi nga xam ne ci la jullit bi di jaar di xam naka la war a jaamoo suñu borom bi subhaanahu wa taala waaye ci lay jaar di xam naka lay jullee ci lay jaar di xam bu doon aji màkka naka la koy defee waaye ci lay jaar itam lépp loo xam ne ponk la di ponkub lislaam boo xam ne daf ko war a jëf naka la ko yàlla digal mu jëfe ko noonu kon xam-xamu fiqh moom mooy xamal jullit bi loolu bu julit bi amee tawxid boobu ba pare am fiqh day am lu cay des lu ñuy tudde at tasawuf at tasawuf nag mooy lan mooy nit ki buy jëf loolu nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala digal mu koy def ci ak sellal maanaam mu koy def ci ak sellal akuk rafetal mu koy def ci ak sellal akuk rafetal mu fexey ba jëpp jëf joo xam ne daf koy jëf rek teg ko ci ginnaaw bi nga xamee ne am na pas-pas bu dëgër ba tàbbi ci jëf ja di ko jëf mu rafetal ko waaye mu def ko ci ak sell ba nga xam ne daraay ngistal du ca dugg ndax euh, nit ki lépp loo xam ne daf koy def rek ngistal di ca dugg bu boobaa loola ngistal la mën na koo yàq kon moo tax euh, sëriñ bi radiyallahu anhu euh, di wax ne maa ngi sant ki nga xam ne moom moo ñu xéewale tawxiid xéewale ñu fiqh waaye xéewale li nga xam ne moo di tasawuf te ñetti xam yooyu mooy yi nga xam ne moom moo tënk diine ci la lislaam di e, e, dox waaye bi mu ci jógee mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moom moo ñu indil imaan bi nga xam ne mooy tolloog ak tawxid nga xam ne xam-xamu tawxid moo koy jàngale andil ñu islaam itam bi nga xam ne xam-xamu fiqh moo koy jàngale waaye andil ñu al itam bi nga xam ne at koy jàngale kon moom mi ngi julli ci yonent bi sallallahu mi nga xam ne moom moo ñu andil Euh, ñetti mbir yooyu muy imaan ak islaam ak ihsaan euh, ginnaaw bi mu jullee ci yonent bi sallallahu wa sallam ba pare nag mu tekki ay ñañam muy waa këram ak ñi nga xam ne ñoo di aw xeetam ak képp koo xam ne aju na ci euh, moom yonent bi sallallahu wa sallam waaye ak saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo deelantee nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te matal ko ba mu mat sëkk kon ñooñu ñëpp sëriñ bi radiyallahu anhu mi ngi julli ci ñoom mi ngi julli ci yonente bi saa sallam di julli ci saxaabaam yooyu waaye di ñaan uh, jàmm ak xéewal ci seen barke mu ne nag wa baadu ginnaaw loolu fa tawxidu tawxid rasul maali mooy capitalu uh, mooy capital ba maanaam uh, bokk na ci la nga xam ne la gën a foor la wa ruuxu diinillahi te mooy ruuxuk diine yàlla ji zil jalaali kay borom ga wa jismuhu aw yaramam al islaamu moo di lislaam wal ixsaanu ixsaan mooy rafetal libaasuhu mooy colom ga allazi ba nga xam ne bi i moom yas daanu lay taaroo kon nee na ginnaaw ba ma leen waxee loolu ba pare maa ngi leen di leeral ne tawxiid de maanaam mooy mooy mooy mooy bu fekkoon ne alal la dañuy wax ne moom mooy capitalu alal ja maanaam alal ja lu mu màgg màgg ak lu mu bari bari dañuy wax ne capital ba nga xam ne moo ko jur mooy tawxiid kon tawxiid lu ama am solo la moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne su fekkoon ne isla uh, uh, ak uh, islam ak ihsaan maanaam imaan ak islaam ak ihsaan dañoo doon jëmm sëriñ bi radiyallahu ne na bu boobaa la nga xam ne moo fay représenté ruux ga maanaam mooy tawxiid ba nga xam ne moom mooy représenter euh, ruux nga ci jëmmi doomu aadama loolu mooy tawxid kon te ruux saa boo xamee ne jugee na ci doomu adama rek doomu adama bi day daal di faatu kon dara duutu fa des kon tawxid lu ama am solo la loo xam ne kon mën nañoo wax ne moom mooy dundal euh, doomu aadama bi waaye mooy dundal jullit bi euh, mooy def ci jullit bi li nga xam ne moo di ak ngëm yàlla gu wér a wér waaye ginnaaw boo xamee ne nit ki am na ak ruux itam ba pare ak ruux wu ñu def ko ci jëmm jëmm ji nga xam ne moom lañ koy def kon bu fekkoon ne euh, dañ ko misaal dañuy wax ne jëmm jooju moom mooy lislaam nga xam ne lislaam mooy jëmm ji nga xam ne ci biiram ci la ruux gi ne al ihsaan nag mooy lan mooy rafetal gi maanaam nit ki soo fekkee ne bind nañ ko ba pare li nga xam ne moom mooy taar bi mooy lan mooy mu am lu ko suturaal lu suturaal aw yaramam ba dara du feeñ ci aw yaramam loolu mooy li nga xam ne mooy ah, rafetal jëmmi doomu aadama kon mu mel ni ñett yooyu bu ñu ko xoolee benn mënu cee dem bàyyi sa moroom waaye benn mënu cee manqué ndax ak ruux manqué ci jëmmi doomu aadama te it ak bu fekkee ne am na itam te amul jëmmi doomu aadama jun ko dugal bu boobaa ruux ga itam mën naa bañ a am solo lool waaye itam su fekkoon ne ak ruux dafa am ba pare ñu jël euh, li nga xam ne mooy jëmmi doomu aadama dugal ko ci ba pare bàyyi ko noonu mu dem bu boobaa itam euh, rafet ga nga xam ne taar ba nga xam ne moom lañ cey séentu euh, ak sell ga nga xam ne moom lañ cey séentu dana des lool ndax bu boobaa euh, la nga xam ne mooy war a suturaal aw yaramam ak yooyu yëpp bu boobaa du ko am te bu boobaa loola mën naa jur gàllankoor bu baax a baax a baax kon loolu li fi sëriñ bi bëgg a jàngale rek ci suñu xam-xam bu gàtt mooy lan mooy dañuy dégg ci loolu ne ñett yooyu benn mënu cee dem bàyyi morom mi tawxiid mënuta dem bàyyi li nga xam ne mooy euh, fiqh euh, fiqh itam mënuta dem bàyyi li nga xam ne mooy tasawuf mooy al iimaan ak al islaam ak eh, al ihsan ñoom ñett dañuy àndandoo rek nga xam ne mi ngi mel nii euh, ni ñu ko mën a tuddee ñett yu ñuy jaxase muy suukar ak suukar ak ak café akum ndox mi nga xam ne noonu la ñuy jaxasoo noonu la imaan ak islaam ak ihsaan di jaxasoo nga xam ne euh, benn mënu cee dem bàyyi sa moroom faw ñett yëpp day ànd su ko defee mu mën a euh, euh, jariñ doomu aadama bi baax baax waaye mu mën a doomu aadama bi man cee def li nga xam ne moo tax suñu borom subhaanahu wa taala bindu ko ci anam ga nga xam ne ca la gën a rafete kon ñetti mbir la yoo xam ne benn mënu cee dem bàyyi sa moroom sëriñ bi radiyallahu anhu uh, uh, doon uh, wax doon wax ne ussu yi maanaam li nga xam ne moom la fondement sama yoon yi mooy lan al imaanu bi tawxiidi mooy ngëm yàlla goo xam ne ci tawxiid lay tege wal islaamu bil fiqhi ak maanaam l'islaam joo xam ne ci fiqh lay tege waaye wal ihsaanu bi tasawufi ak rafetal goo xam ne ci tasawuf lay tege comme ñett yooyu mooy yi nga xam ne moo fondé aw yoonam loolu li ñu ciy déggee itam ba tey mooy dañ ciy dégg ne kon sëriñ bi radiyallahu anhu aw yoonam euh, euh, ñett yooyu benn mënu cee dem bàyyi moroom mi waaye ñett yooyu mooy yi nga xam ne itam mooy cosaan yi nga xam ne ci la fondement li nga xam ne mooy euh, aw yoonam mu ne fa duunakum jàpp leen yaa ma'shara sibyaani yéen mbooleem gone yi man aw way yasuuqukum wow dana leen màng ila rahmaani jëme leen ca uh, borom yërmande ja te mooy suñu borom subhanahu wa taala sammaytuhu tudde naa ko moom way wii wala yaxal wii bi jësbati sixaari ci la nga xam ne day ñotti ndaw ña an laay bin jële leen ci am pox li xidmatil muxtaari jëme leen ci ak uh, liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa ma nga xam ne moom la ñu tànn alayhi yal na nekk ci moom yonente bi sallallahu xayru salawaati ngën gi dolli teral wasalaam ak jàmm wa alihi ak ñoñom wa sahbihi ak sahabaam alxurri ñadi ay sang alkiraami ñadi way tedd maa saidal muridu li feet euh, euh, murid ba wala taalibe ba wala aji namm yàlla ja ma texe bitti baay awamiri seex ci topp ndigalul sëriñam bila nisaan ci lu werante wa daamate mu sax man ka nga xam ne lam yattabi topput sunnaas yonente bi wala topput ndigalul sëriñam mun xaritan di aji soobu fii silki iblisa ci yoonu iblis allazi ma nga xam ne xat afrata ca dëgg-dëgg fetteerlu na kon ne na yéen ndaw ñi maa ngi leen di maa ngi leen di dénk ngeen maa ngi leen di dénk way wi nga xam ne dama ko way ah, waaye dama ko way ngir Euh, muy way woo xam ne dama cee jublu mu ñoddi leen jëme leen ci liggéeyal yonent bi saa sallam waaye mu jële leen ci am po itam jëme leen ci euh, yoon wu baax yoon wu jub euh, way la woo xam ne loolu moo tax ma way ko waaye way la woo xam ne itam maa ngi ko way ngir defal ci ñi nga xam ne ñoo di xale yi xéewal gu màgg màgg goo xam ne dinañ ci mën a euh, toppe yonente bi sallallahu waaye danañ ci mën a toppe seenub sëriñ ba mën a liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na jàmm ak xéewal nekk ci moom waaye yal na jàmm ak xéewal itam nekk ci saxaabaam yu baax ya nga xam ne ñoom la àndaloon li feek murid bi mi ngi texe ci topp ab sëriñam waaye li feek ki nga xam ne moo féeteer lu topp iblis mi ngi alkoo ci topp ga nga xam ne moom lay topp iblis Euh, li feeg loolu mi ngi am rek yal na jàmm ak xéewal di sottiku ci yonente bi sallallahu alayhi ak i saxaabaam kon téere bi mën nañoo wax ne euh, sëriñ bi radiyallahu anhu daf ko bind jagleel ko ñi nga xam ne ñoo di euh, gone yi waaye itam bu ñu eggee ba ci biir danañ xam ne doonte ne noonu la ko sëriñ bi radiyallahu anhu ko itam waaye mën nañoo wax ne mag ñi itam ni ci gone yi mën a jariñoo noonu la ci mag ñi mën a jariñoo kon ñi ngi tubb bu baax a baax te jéggulu di wax ne in uridu ilal a mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu